man nag dama am ay laaj yoo xam ne dinaa la ko jagleel bi ci njëkk mbir mbirum poste madame la ministre poste jafe-jafe yi mu am ak fi ñu toll ak social bi mu nekk ci réew mi bëgg naa état Sénégal nga wax yan matuwaay ngeen si jël ngir poste mën a suqali ko pour jëm kanam ndax am na ay jamono yoo xam ni bokkoon naa si combat bi pour que ñu jël poste bor yu amee ñu def ko capital pour poste mën a siggi ndax japp naa ni bu amé ay jafe-jafe état Sénégal bokku na liko soxal ndax bourse sécurité familial poste mo koy fay kon japp naa lool rek war naa tax tay ngeen jël ay engagement ba li nga xamante moy mooy jafe-jafe yi nga xam am ko si ay déficit ak ay bor yo xam am ko pour que état mën si jël ay ay responsable loolu bokku na ci en tant que le membre du conseil d'administration des postes man mi initiateur ben lettre bo xam mako maa déposé pour jox ko président de la république ngir mu recevoir wa poste pour que ñu lijjanti problème bobu noonu si nu gëna gaawé bëgg na tamit nga wax lettre bobu fan ngeen tollu ak lan ngeen mëna def pour lolu mëna jëm kanam. madame la ministre ma ngi lay wax ci affaire Sonatel ñun am nañ ay jafé jafé population bi sonu nañu madame la ministre Sonatel mi ngi ray askan wi ndax mënu ma nangu ko xam do joxe reçu bu doy. te weer wu nekk nga am fukki milliards ak juróom ci askanu senegal ba pare ña fa nekk di liggéey poste di leen dagg ay taxi ak ay impôts yoo xam ne tegu ko fenn loolu bëgg naa nga wax ñu si lan mooy si xalaat si loolu ndax kat Sonatel ak Orange moom wax dëgg yàlla bu fekkonte ni tey ñoom moo tax senegal yi mënutuñoo am dépense bu doy moo tax mënutuñoo am xaalis seen poos te vraiment du leen jox reçu bu doy tey tam ñu ngi leen di nax boo demee Matam barki démb rek ku ne xam na ne ña fa dëkk dañoo amee ay jafe-jafe réseau nit mënoo di kidnappé di encaissé xaalisu jàmbur ba pare mënoo koo jox lu ko doy. autre ila tubaab yi boo fay dem ba tollu cees doy too amati réseau madame la ministre il faut que ngeen wax poste Sonatel mu xool li muy def ndax askan wi nga xam yéen moom ngeen taxaw moom ngeen teewal di leen représenté nguur gi yore ko yore seen baat ak seen alal ñu gën a taxawu askan wi ndax askan wi sonn nañu. madame la ministre maa ngi leen laaj aussi ci Free ndax ñun jàpp naa ne ay représentant peuple bi lañu te lépp loo xam ne mën naa gën a woy woyof askan wi ñun ci loolu leen war a sukkandiku ARTP bi nga xamante ni bi Free génnee li nga xam ne mooy li mu war a génnee ci lu néewal lu néewal koom-koomu askan wi mur maanaam wàññi seen seen i jafe-jafe ñoom dañoo lank ni ko loolu duñu ko d'accord loolu may laaj fan lañ ko teg ndax jàpp naa nii ñun ñii nga xamante ni bëgg nañ lu yomb bu ñu sañoon firi li mu def keneen def ko keneen def ko ma lay laaj aussi ci promobile bi nga xamante ni suñu benn collègue bi suñu xarit di sénégalais muy mag yuy fay depuis boobu ba léegi mënut a liggéey ndax am ay problème bëgg naa xam loolu lan moo tax ba tey ubbiwul ndax bu fekkee dañoo jël poste jëloo jël sonaateel jël Free muy ñoo xamante ni dëkkuñ ci réew mi am koo xam doomu réew mi la ba fi may wax ak yow muntu ubbi ay buntam ndax ay jafe-jafe bëgg na xam jafe-jafe yoyu lan moko waral. madame le ministre redevance bi nga xamanteni ni Sonatel amna ko département Mbacké commune de Touba nga xamé ne magal dana gagné 45 milliards francs CFA te amul benn dërëm bu déssa ci bi dëkk ba bëgg na xam lool tam far ngeen tollu ndax redevance yi nga xam ne ko wara verser le collectivité territoriale yi est ce que ñu koy def ak kañ ngeen par rapport def ko. li nga xamanteni ne sax moy ARTP doxalinam. est-ce que mi ngi méngoo ak li nga xam moom lañ ko sant ndax jàpp naa ni bu fekkee mi ngi jël yenn décisions yi war na si mën xalaat ñi nga xam mooy population bu Sénégal ndax que ñun sénégalais lan duñu gàddaay du ñu dem te fii lañ dëkk kon chaque jour buy jël décision war na xool li nga xam mooy intérêt mi te bañ xool intérêt li nga xam mooy nasaraan yi muy défendre loolu. en tout cas may laajaat aussi lu si mel RTS te président Larrey dafa wax ni c'est numérique te numérique boobu nekkul si yow lan moo waral nekkul si yow. je vous remercie madame la ministre jërë ngeen jëf